ci màggal daaru salaam bu ren ji soxna Amy Seye ni nga xam ne noonu la ko defee woon daaw defaat na ko ren muy bernde yu am solo yoo xam ne daf koy waajal saa su ne yóbbul ko Serigne Cheikh Anta Mbacké mu nekk liggéey bu am solo boo xamante nii def gi mbégte la ci àndal. ndax togg ak yekk moom daa mel ne dañ daa salaam la ba fekk baax rawat na si kër gi saa yoo xëyee suba ba ngoon buñ toggut tey togg nañ suba kon lii dañ cee fekk. baax di sant suñu soxna su baax si nga xam ne moo ko gën a yokkaat nag ginnaaw bu ko sëñ borom yokkee tey moom rey nañ ay ginaar nañ ko daan defee ca cosaan la waaw xéewal moom sëñ Cheikh Anta lañ koy yóbbul ndax mooy borom cant gi ñu doon defal ci fan yële moom cant gi day gën di yokk rek ndax sëñ Fallou ko doon cant ba fi ne am na nag soxnaam suñu ñëw jàppale ko si cant gi. soxna Amy Seye nii la àndandoog waa kër gi dem jébbal Serigne Cheikh Anta mboolem bernde yi nga xam ne moom la waajaloon bi ñu agsee lu ni mel leeral nañ ko sëriñ bi. lii ci liggéeyu kër Baye Cheikh la bokk ndax kër gi moom lu fa jógee rek bay Cheikh waaye sa taalibe bii moo ko doon defar ànd ko nag ay ay bokkam daa mel ne soxna Njaaye mooy boroom kër gi ala dogalit mu jiital ko ci léppam xam naa ne sa jëmm ji ñor na ko it nag jëmm ñor na ko waaye yàllaa ko dogal mu bëggal la boppam def la it nga dib sëriñam lii daaw la ko tàmbali woon na ma damaa amoon yéene màggal gi may toggal sañ Cheikh ab reer ndax damaa amoon yéene ñuy def bis ma def ci bis te man liggéeyal sëñ Touba rek laa bëgg moo ma andi it Daaru taxoon daaw ba mu koy waajal daa daa wutub xaalisam jënd ay ginaar dugal leen di jënd ab xontam di ko xont ren jiit bi ñuy wori la jox baay Cheikh mais ndax moog Baye Cheikh mais ko ànd. moom la def muy doomam moom daataa ko jógee penku la ne ma say doom de kañuy wax seexu naa gisaguma ko waaye seddoo naa ko def ko muy sama doom ndax dégg naa seen yaay dafa teel a dem waaye séddoo naa ko def ko muy doomam waaye ginaar yi ba mu koy dugal bàyyi Cheikh mais la àndal jënd ko di jënd ab xontam di xont dama damaa bëgg bu ñu ci bis ba li ñëpp def ma def ko togg ab reer yët ko sëriñ bi yàlla dogal na it fekkuma ko ci dara lu weesu daal lii bi mu koy defar moom jënd naa saakub suukar na ko boo bëggee suukar nga suukar si li ci des ñu koy suukaree kafe gi di yóbbu waaye loolu defu defaluma ko ko ci ndax daf ma ne dama ko bëgg def sama ñàq bopp ànd ak goneem yi gone yii nag gone yi kër gi yii fi mu ne kenn ku wallaahi lancin gi bi màggal gi jub kenn ku ne xottil na la mbubb na leen damaa bëgg ñu nuroole ko ñoom ñëpp bàyyiwu ci kenn njabo ñii nga xam ne ñoom la àndal jub bàyyi ko sowu nag ñu de ay bokkam teñ teñ bokk lépp e, sa jëmm rek tax mu àndi leen fi ndax man nee naa leen du man sama jëmmi bopp na ko waaye def rek baax na ndax duma ci topp kenn dara waaye sëñ Cheikh daal ku ko gën a bëgg ma gën laa bëgg sëñ Cheikh rek laa am waaw lu ngeen lu ngeen lu ngeen ma dara defal daal defal leen ko sëriñ bi waaye daal jàmbaar la joo xam ne daal mat naa ñaanal mat naa ñaanal yàlla àggale yéeneem njaaye mee nga xam ne mooy magam ñu bokk kër ga ak maam Faati mam fa nekkal ñëpp daf maa wax ne ma kër kër man la ma doon ci sunu waa kër mooy aawab kër bu baaxee sa ndaaya su baaxut sam tuura njaaye nag moom yàllaa dogal ma bëggal ko sama bopp tànn ko jiital ko sama njaboot ak njabootam sax bu ma sañoon du ca defati dara. waaye sëriñ bi bég lool ci jëf ji nga xam ne at mu jot soxna Amy Seye mi ngi koy def daal koy rafetlu waaye boole ci ñaanal ko bu baax a baax. moom itam lu moom moom seen seexante doon na ko di doon. waaye nag moom faaw mu jéem dara. mu ne kon sant nañ la baax. di leen ci rek. di ñaanal ñi nga àndal ñëpp. ngeen tase. ak taw féexi Serigne Touba.